al leen ma seeni nopp ma xibaar leen di si yéenekaay yi diggante Alioune Sall mi ministre de la communication ak média yi daal dinay tàng jër jamono ji li ko waral nag bu ñu sukkandikoo ci direct news mooy ministre bi daa fësal liste média yi nga xam ni ñoom ñoo dëppoo ak yoon te ci 536 organes yi nga xam ni ñoom la ñu am nee nañu 112 képp ñoom ñoo ci dëppoo ak yoon bu bokk ci 54 presse en ligne 10 télévision 14 journaux 14 rajo 11 rajo communautaire ak 6 web tv ci noonu nag mu xamle ni ñetti weer la ñu joxoon média yi ngir ñu régulariser wu fii mu nekk nii nag 72 heures képp la ñu leen may ngir nag ñi nga xam ni bokkuñu ci list bi ñu daal di rattrapé wu loolee nag waa grand place moo ngi ñu see xamal ni euh, moo tax ba waa SEDEPS di kuréelu patron de presse yi euh, di ko euh, naqarlu te nag ne dinañu xeex ak ministre bi ba lu ñu am jël ndax turbine nee na ministre Alioune Sall daa jalgati constitution bi ndax article 11 bi li mu xamle mooy taxawal organe de presse ngir fësal ay xibaar moo xam muy politique économique culture sport social ak bu mu mën si doon aji wul autorisation ba tax l'indépendant tuddee li xew banditisme d'état ba tax association sénégalaise des éditeurs de la presse ñoom it ñoo ngi naqarlu li xew ndax nee ñu jaay doole la dëgg te it nag bëgg a noot wala daaneel entreprise de presse yi képp moo leen tax a jóg ak loo ci mënti dégg daal le grand panel quotidien nee fësal bi ñu fësal liste provisoire këru tasum xibaar si képp la le quotidien teg ci ni saal coup la ci état bi saal ku la état bi def ci presse bi ndax euh, ci trois cent quatre-vingts médias yi cent douze képp la ñu ci validé te le quotidien 7TV Sen TV L'As ak yeneen yéenekaay bokkuñu ci euh, ci liste bi ba tax sa def si jàpp ni euh, jaay doole dëgg moom la ñu nekk di def ba tax nag dinañu xeex ak ñoom teral quotidien ne du ñoom kese ndax patronat bu presse bi yépp kay ñoom ñooy ñaawlu jaay doole bi ñu ne moom la ñu teg seen kaw muy ñi nga xam ni ñoo bokk ci SEDEPS ñoo bokk ci ASEP ak euh, ñi nga xam ne ñoo bokk ci FACS ñëpp taxaw taxawaayu xeex ñu woyal ak le républicain euh, bi ñuy xamal ni euh, démb ci conseil des ministres bi adopté nañu fa projet de loi de finance bu atub 2025 ba tey ci conseil des ministres bi le soleil nee na premier ministre Ousmane Sonko xamle na fa ni balaa yàgg dara bëgg naa amal déclaration de politique générale am ca assemblée nationale ba tax le témoin quotidien gannaaw bi nga xamee ni moom Ousmane Sonko am na majorité Euh, mujjee naa pare ngir amal déclaration de politique générale am réew mi quotidien ñëw ci président Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ni digal na gouvernement bu Ousmane Sonko bi ñu nekk gouvernement de solution consensus ak résultat projet de loi de finances rectificative 2024 ak projet de loi finance initiale 2025 adopté nañu ko foofee ca conseil des ministres ba déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko itam euh, balaa yàgg dara dinañu ko amal euh, ba tax 24 heures ne député yu bees yi kay ngir noppaleku ndax faaw ñu examiner projet de loi yooyule l'observateur moom daa xëy ci audience bi nga xam ni Ousmane Sonko mayoon na ko ki nga xam ni moo di om d'affaires bi di na jax yéenekaay bi ne li ñu doon waxtaanee bokk na ci mbirum West African Energy eh, teg loxo bi ñu teg loxo samiel Sarr ak intérêt nationaux yi ci la ñu ndar keppee ci yéenekaay yi ma delloo leen seen i nopp ba ëllëg ak jàmm ci Sénégal 5 TV jërë ngeen jëf